keneen nag ku xewle te bokk xewle pour APR xewle pour APR dinaa ñëw parce que dama xalaat ne képp ku xewle président Macky Sall nga sotti wax naa ne ku ma nawloo man Nafissatou Diop dinaa la uy si ku ma nawloowul nag faalewu ma la mais ku ma nawloo dinaa la uy si maa ngi au responsable politique Kaolack yëpp nekk leen benn xeex bi opposition la opposition sax mën naa ne amul parce que nag Macky fii Sénégal amu fi nawle ndax li mu def ñëpp gis nañ ko ñëpp gis nañ ko kon nag suñu toogee ñun ci suñu biir di xarañante di histoireante di sànnante lu bon loolu mooy problème mu Kaolack mais wax dëgg yàlla Sénégal moom président Macky Sall amu fi nawle